Bienvenue au moment respectives alors top c'est parti pour la deuxième course du programme les poulets et pouliches de deux ans 10 partants pour une distance de 1200 mètres à parcourir avec un excellent départ de Nini à par Jainous. Nini Aydara monté par Mamadou Ley moom moo génn ci kanam en deuxième position kii kan la monté par euh, Mbaye Diène Diallo troisième position Ndeye Maguette ak ki nga xamante nii moom mooy waxal jàmm Seleko Diop côté Cordu en quatrième cinquième position Prince Mati moom moo fa nekk maa ngi seen Damel euh, Makoura Jokoli ki ferme la marche nekk fas bi nga xamante ni moom mooy waxal jàmm bu Alpha waxal jàmm moom moo ferme li nga xamante ni moom mooy moom mooy kii kal la ànd nañ nekk benn fas mais attention am na ku leen ñoo daal ñëw seen ginnaaw moom mooy fas bi nga xam mooy nga xamante ni moom mooy génn moom mooy kii kal la suivi de fas bi nga xamante ni moom mooy ni na dara attention dawal nañ en troisième position Séleko Diop mu ñëw seen kaw Oumar Sarr Diallo moom moo ko war mais laxaat ki nga xamante ni moom mooy Séleko Diop léegi génn na li nga xamante ni moom mooy bopp ànd ak ki nga xamante ni moom mooy kii kal la ak fas bi nga xamante ni moom mooy ni na dara ñu dawal ndey ñu ngi ci tournalu xombal bi ci diggante euh, kii kan la ak Seleka Diop Qui la monté par Mbaye Diallo deuxième position Seleko Diop monté par Omar Sar Diallo troisième position Nini Aydara Ndeye Magadan quatrième position cinquième position Damel Makhoura Diokoli monté par Yamar Gaye tourné nañu tournalu Alpha Ndiaye ñaari fas yi ànd ci distance 800 mètres maintenant Seleko Diop réussir na gagne, ko bopp réussir na Seleko Diop génn na Seleko Diop par soleil de minuit John Quad Sadezuel Nozen Danser mais qui kan la bàyyiwul kan la bàyyiwul attention ñaari Fassi. attention ñaari Fassi. attention ñaari Fassi. attention ñaari attention c'est attention Seleka job ak ki kan la attention Seleka job ak ki kan la attention Seleka job ak ki kan la voilà attention voilà attention Seleka job ak ki kan la y'a photo entre Seleka job ak ki kan la légui légui légui légui photo finish bi dina len départager légui légui légui photo finish bi dina départager ñaari fas yoy non? attention c'est le Seleka job ak ki kan la ñaari fas yi. 800 mètres lañu andal doon benn ba ci photo finish bi voilà tay félicitations écurie euh, euh, yi nga xamante ni moom mooy Lamba Faar félicitations Mouhassila mais félicitations ñom boogaa ndax liguey bi am am solo liguey bi amna solo mais attention photo finish bi dina leen départager légui légui légui ndax keroog gis nañu fi li nga xamanteni ni moy execo entre fas bi nga xamanteni ni moy mooy Very Love ak Mizane troisième nekk fas bi nga xamanteni ni moy nini nii nii ay dara troisième nekk nii nii